Euh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, bala ñu door waxtaan wi dama bëggoon lu bokk déglu mbay peex euh, ci kàddu yoo xam ne jot na koo yëkkati wala kàddu yoo xam ne yàgg na ko yëkkati suñ kanam bu ko defee ñu mën a waxtaan nag ndax waxtaan kër na ko jëmee ci dëgg li ñu du bëgg a fàtteloo muy le passé le passé kenn du ko fàtte ndax li nga xam ne moo passé ci nga mën a sukkandiku pour mën a jubbanti sa bopp ci li passé nga mën a sukkandiku door a teg sa bët fa nga jëm ci li passé képp képp ci nga mën a sukkandiku mën a def dëgg ëllëg kon bu bokk déglu mbay peex yuuxu yi xam daan na ko yuuxu ah ba noppi nag lu indi suñu xalaat xalaat ne duñ ko indi xalaat rek kenn ku ne ak na gisee ñun de nin gisee la ñuy wax ndax li xewoon démb defe naa ne boo naggam naggamloo rek say bët jàkkaarloog moom kon bismillah ñu bokk déglu mbay peex door a àggale waxtaan wi. gis lambaay bu baax nii Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Mourtala Mbacké mu sëñ Maam Mor sëñ Maam Thierno di sëñ Cheikh Absa sëñ Assane Mbacké jàpp nañ la andi nañu waa Touba téye la jàpp la jàpp na la jotaay bii nag ku ne bëggoon na ko yàlla nga koy doog a dogal waaye moom nii xam na li ci xolam moom itam xam na li ci xol premier ministre Touba génn na ndax góor ñi nga àndal ku ci ne mu àndandoo déglu ci délégation bi ñu àndal ñëpp déglu. waaw mi ngi noonu noo bokk déglandoo euh, te du moom dong ah du ñi juum na ñi juum na waaye tooñ am na waaye jéegul itam am na. jub am na nit day doon ab chrétien mu yaa ngi doon jullit wala jullit dem yaa ngi doon chrétien kon ku tuubit war na laa mën a jéggal kon nu continuer waxtaan wi te teg ko ci yoon te ay xalaat dong la nag ci seen asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi leen di ziyaar bu baax a baax a baax a baax nu ànd di ñaan jàmm jàmm dëgg da jiitu bu dëgg amul ku seenu jàmmit da fa yàgg waaye doo ko teg bët moo tax fu mu toll it nan demee dëgg jëfe dëgg wax dëgg bu ko de daanu mën a ànd bokk jubbanti ba lépp bokk jubandoo euh, nit nag da dem ci taarix taarix boo ko fàttee doo mën a am jom histoire bi dëgg dëgg dëgg boo ko doxaalewul ci gëlëm ga jëm ci gëlëm nga jëm mais li fi nekk nañ ko bokk wax fexe nu ko bokk jubbanti te lu jiitu loolu ñu ngi ñaanal màggal gu yaatu màggal gu neex màggal goo xam ne seeni ñaan dana nangu ba pare barkeel ba pare barkeel nit day fàttali ko kan boo ko waxante dëgg kan boo ko waxante dëgg du du mbay peex rek rus du mbay peex rek rus mais ñun ñëpp noo bokk rusandoo ndax ni mu amee ci dëkk boobu wur ni woon a amee noonu Ousmane Sonko kenn ku ne xam na ne maltraitance bu ne def nañ ko ci dëkk bi am xale yoo xam ne dañoo taxaw am jom ne daal di ñoom duñ ko nangu ñu leen damm di dóor di dàq di toxal seeni chaise ñu di ko yàq ba lépp loo xam ne euh, amoon na ci dëkk bi tey bu ngeen ko bëggee fàtte du deme noonu déedéet bracelet Pastef képp képp boo ko mosoon a yor dox ci digg pénc bi ñu la duma nangu ko dagg ko Ousmane Sonko ñëw na fi rek bëgg a dugg ñu ne ko doo dugg ba Bassirou Diomaye def na campagne ba xel mi ne ci ma jaar Touba ba mu yàgg duma fa jaar ndax kat sëñ bi ne bu fa kenn politique fii la Macky Sall di ñëw ah sëñ bi bu kenn politique ci dëkk bi ñu dàq ñëpp ñu dem keroog Macky Sall ci digg penc bi la taxaw di politique ànd ak sëñ Bass Abdou Khadre ak ay complice dëkk Touba li fi nekk nañ koo wax xale yi xam ko yéen mag ñi nag su ngeen nangaloo wax dëgg te li fi amoon xew ci bëti xale yi xale yi daa ñu leen weddi te jur doom mu weddi la daanaka lu doy waar a ngi noonu kan waxante dëgg bracelet Pastef képp nga yor ko ni ci biir Touba di taxawaalu waxuma la ay duma yu lay duma mais booy daañu la wat ba nga set wecc te ana ko doon def Baye Fall yi ñoo ko doon def Ousmane Sonko maslaana ak ñoom dem na ba sol uniforme Baye Fall bi taxaw ngir bëgg rek xam ne ci yéen da agut jàmm teewul waa këram yi nga xam ne ñoo nekkoon Touba sonoon coono boo xam ne sëñ Touba ci bëtam te du ay fen dëgg wax lii nag bu leen darati bum leen dalati ndax képp ko da nga won ginnaw histoire da nga won ginnaw le passé da nga won ginnaw une vérité historique da nga dem ba la la ca dalon du ko ëpp fouf dana la ca dal motax li fi nek na ko xam Touba gi lañ ne won kenn du fi brasser les Pastef Touba gi lañ ne won Ousmane Sonko no grata Touba gi lañ ne won ben carte fi nek mi carte Macky Sall beneen carte du fi ne tuuba gii la ndigal li jóge woon bin jekkoo Macky Sall ndigal li fi la jóge woon ñu bàyyi ko ba coono bi bépp dal na kon lii fi nekk bàyyi leen gërëmante ay nafiq la te am na nafiq goo xam ne yàlla du la ko baal de yàlla ci kaw askan wi la koy teg la xewoon loot xam ngeen ko mbirum góor jigéen ma gis ngeen ko benn nit mën naa tooñ yàlla pudd mabbu ñépp ñëpp lay faagaagal ñëpp parce que yalla du morom yalla dis ko togn yalla dis ko djew li nga xamné amon na ah fexe nu mu amatul parce que discours yi dem yépp war nañ cee boole lolu li nga nu defoon lu tax nga def ko ba do to ko defat lu am solo ngi noonu élection yi dik nan bay ñepp woote waaw ku way bëgg na woote fu way bëgg na woote waaye Macky Sall dong la fi ak keesam nekk Mbaye Pekh di yuuxu naan troisième mandat troisième mandat te wóor na troisième mandat dëgganul jataay boobu Mbaye Pekh waru foon a toog Mbaye Pekh waru a toog te du moom dong ah du moom dong sëñ Bass Abdou Khadir fii lañ toog ne bu kenn politique ci dëkk bi mu indi Macky Sall ci dëkk mi politique waaw yéen ko xam li sëñ Bass naan kan xool li ci kanam bàyyi li ci ginnaaw déedéet déedéet taarix lu am solo la taarix lu am solo taarix moo waral màggal gi taarix moo waral màggal gi taarix moo tax ñu nettali ba ni xeexu badar ak xeex bi amul lislaam def ko taarix dafa am solo sa taarix boo ko négligé boo ko négligé silmaxa suy dem nga dafa mel ne oto booy dawal te amul rétroviseur sëñ Bas li nga fi defoon ak ni nga ko defee woon tegginuwul jaarut yoon nañ ko wax nit ñi xam ko lu si nëpp nëppal néew fi waaw téere yi nga xam ne jël ngeen ko te moomu leen ko jël leen ko ngeen delloo ko gouvernement bi bu xaar ba di ko jël si kon fi joxoon suuf nga doon ko te doo xam ne loo war a doon la jëlal suuf si nga delloo ko alali jàmbur kenn du ko foyee yàlla du caaxaan dama ne ay mafia yi du mbiri yàlla yàlla dëgg la soxla kan bokk am jom xam ne ëllëg ngi dikk te daanu taxaw yàlla attenu képp koo xam ne li nga log moomoo ko yàbbi ko nga raxas ko ba mu set delloo ko fa nga ko jëlee woon jébbal sa bopp justice ñu xam na lay jigal wala lay téye président Ousmane Sonko euh, dama ne buñ di gërëmante ci ci ngelaw xale xamul dara boo nekk fi di gërëm ñoo xam ne ëllëg ñoo la fi nekkoon bëgg a jël sa ndoxum bakkan tey nga taxaw futti ku di leen gërëm xale ngay gëlëmal xale dañuy xalaat de xale yàllaa ko di sant leen muy déglu xale déglu mooy métier maanaam jàng kon mag buy wax gone di ko déglu war naa xam la muy waxee lan te wax dëgg te wax dëgg pencum Tuubaa mii penc moomu kenn si fee xalaat heure bi daaw ngàbb ab bracelet di dox ci penc mi kenn ñemewu ko wala nga sol t-shirt boo xam ne Ousmane Sonko ca ne képp dañuy la duma futti la nangu t-shirt bi toroxal la loolu moom duñ ko werante comme nag lii am na te nee ngeen da ngeen te juboo tey sax du bisub juboo bisub màggal la bisub wax dëgg la bisub jëf dëgg la bisub ñaan yàlla la bis la boo xam ne fam ñu ngi ciy séenu te bu ci dëgg jiituwul dama dara du sotti maa bi fi noonu lañ ci wax sëñ Bass a ngi nii ci penc bi lay daagu ànd ak Macky Sall te sëñ bi ne bu fi kenn politique moom mu jóg di politique par force te biir Touba boo fa yoree bracelet bracelet Pastef dana la duma duma yu metti nang ko dagg ko sànni ay élection nga xam ne c'est national kenn ku ne war koo def nga ne dëkk bi kat keesu Macky Sall képp fi ne geneen kees du fi ne lépp ay bulletin blanc loolu lépp ay bulletin blanc loolu bu mu fi amati na ñëpp wote walla kenn bañ a wote loolu mooy dëgg mooy yoon waaw ci événement yii ni ngeen mën a waxee dëgg waaye événement yu mag yi àdduna bépp taxaw ngeen samp ay rajo di gërëmaate ak waxante te li nga dara du ci dëgg kenn gëmu ci loolu dama ne loolu Sénégal yi duñ ko nangu lu rusloo ngi nii xali géwal yi ku mel ne mbay peex ñu bàyyi ko mu yoru làmmiñam ah, troisième mandat troisième mandat troisième mandat tey le président Ousmane Sonko Tok. Khalif général Tok. sëñ Bass Abdou Tok. Mbaye Père Tok. ñuy gërëmante ci seen biir man Ousmane Dramé damay lànk du ma nangu ne ak jubla te du jubbanti itam kan boo ko wante tant que dëgg génn lu ko rek am problème waaw bàyyi faali fi lañ nekk toroxal nit ñi leen ko Baay Faal yi ay yat lañ yor kum fi dumawul amul Baay Faal yi daan même am nañu santa Mbàkke doon jàppale Ousmane Sonko amul yoon jàmm ci dëkk bi sëñ Coro Mbàkke lu ne jiiñ nañ ko ko lu ne nañ ko ko sëñ Assane Mbàkke lu nañ ko ko xale yooyu nekk biir Touba ah lu leen jiiñut amut dem ne lu nañ leen ko naan dañuy football ci mbedd meek dañuy def lii dañuy def lële fekk ko Ousmane Sonko lañu bañ a gis bëgg Macky Sall am troisième mandat fi bu daanu la mafia bu daanu dama ne kenn waru koo félicité kenn waru koo gërëm kenn waru koo jay jàngi leen ci ay leçon pour ëllëg te nii ñu ko doxalewoon du bañ koo doxale noonu Pastef na wote démocratie ku nekk Touba am nga droit voter Pastef bu mu toppandoo kenn li nga xam ne moom lu waaye wax na ko def waaw te ma dellu leen rappeler encore mënu ci bañ a dellu si kenn ku ne la nga yor te moomoo ko xam nga ko te yàlla du caaxaan te alali miraas dafa foor nit ñi ngir yàlla lekk leen lu moom lekk leen lu moom ay waay nga faatu ah yóbbaale loo xam ne léewu la moomoo ko surtout alali jàmbur ah ak am pax nim xate billaahi da nga ko réccu ko fi yorloo moomut demal nga delloo ko waxtaan ak gouvernement bi ñu seet ba am nun bu lay waaye tool yi ngeen jël muy ay suuf te senegal buñ ko jël bay ko lépp soble ah ngeen féetoo ko moom ko di ko ay tubaab tubaab moom ko te ngeen dëkk ci dëkk boobu nag dëkk bu tedd la ak jubadi la kan waxante dëgg Hollande te Hollande mu ngi xam ne mooy jaay soble Sénégal Hollande Hollande genn wàllu Sénégal la te ay nit a nga fa dëkke ñoom seen i tool di dundal seen bopp ba pare waññu ko encore am yeneen tool yoo xam ne dañ cee bay soble di ko jaay bay jaay waa Sénégal ana lu ko waral suuf si ngeen confisqué te liggéeyu leen ci ay taalibi ngeen di jël ñuy xëy suba ngoon guddi leen liggéeyal te leen fay ñaari dërëm te liggéey li dig mooy àjjana moomu leen ko Macky Sall mii gangster la woon sëñ Bas xam na ko ay gangster lañ te billaahi wallaahi loolu moo am ñun doon duma Tuuba ak di leen taqal ak di leen fenal ak di leen jàpp ci ay erreur xam na ne ab gang ñoo ko def sëñ Assane Mbacké jotul la kenn dara ñu jàpp ko tëj ko pour lan sonal ko parce que lan Mbacké la sant parce que dafa santam Mbacké and ak li nit ñi wax li li nit ñi bëgg li nit ñi bëgg mooy boycotté Ousmane Sonko mu lank goré ba dé Baye Ablaye Wade di ñëw and ak Ousmane Sonko koku di tecc ci kasso du yoon té du mom dong du mom dong xale dé ci kasso bi bari na te ana lu ko waral ana lu ko waral wa Touba ñaka wax mais Touba bu ñu jógoon wax rek ah teg ko lepp ci dëgg billahi wallahi nit du faatu dama ne Touba bu ñu jógoon remplir sen rôle nit du faatu surtout nak ci dëkk bu tedd bobu nga xam ne jaamu yalla tax ñu sant samp ko ha indi ay géwél mbay peex ha indi ay soxna bal yi nga xam diga moy makro mooy ko ak ànd ko ak rakkam magam xamu sëñ bas joge fa encore loolu doyul marin fay Sall mafia yëpp jigen ni dajalo fofu ci bi keur soxna bal yi difa tabax ak toj ak yaq tay mu bëgg recevoir kan jabur la la première dame est-ce que li jaar xol leen rek ni ande te musta bëgg a gis jomaay musta bëgg a recevoir jomaay ah mbay peex ga làmmiñ mu réew yi di yuuxu guddi bëccëg suba ngoon lépp di ay fen ba li dee ci askanu senegal kenn xamul lu mu toll Ousmane Sonko waxal li fi ne waxal li ne nit ñi xam ko amul benn taale bu la fi mere fii la ñëpp ne nañ bàyyi Ousmane mu dee ci kaso bi xale Touba yëpp dug taxaw ne du fi amee ñi sant Mbàkke ñu bari jóg taxaw ne du fi amee yaa ngi nii taxaw tey bu la dara tax a tiit waaw sëñ bas bi bu mu la gondi ci ay wax alal yi nga xam ne yor na ko ak lépp na muumu ko na ko delloosi kenn ku ne xam ne kenn du ànd ak Macky Sall te du ab sàcc kuy ànd ak Macky Sall ku ne loola loo jekku jël kon ñoom ñëpp nañ gore liñ jël ñu delloosi ko ndax nit ñi soxla nañ ko waaw Touba nag li naan une rupture une rupture dafa war a am ci dëkk bi si àdduna bépp a ngi wax Touba ab dëkk la comme dëkk yëpp waaw nañ leen respecté jox leen seen cër jox leen seen wàll duñ bàyyi nag ñetti nit toog ci kaw nit ñi di pédale suba guddi ngoon te lu xew ñu taxaw di leen gërëm sang bu tedd beeg di wax ak wax tam yox gëmuñ ci dara te dara du ci dëgg li fi nekk nañ ko wax ñun ci kër gi lañ bokk am droit wax ci kër gi man de du ma bokk ci dara ba pare tey sama gëmiñ ci laa bokk am naa droit wax ci te dama ci wax neex ma te li ma ci wax du ci wax pour yàq liy defar laay wax defar nag mooy ñu indi ànd wax dëgg defar mooy géwél yi nga xam ne am ci li ñu bëgg a dund nañ jëlaat seeni i tama dem seen yoon te bàyyi sëriñ bi bàyyi diine bàyyi la loi bàyyi la gouvernement ñu doxal Touba doxalin woo xam ne dana dëppoo ak lislaam dana dëppoo ak yoon dana ëppoo ak diine waaw yii fi nekk ka jaayaate gii na dakk na dakk la première dame fi nga toog du foofu fii du sa place kooku nga àndal waroo ànd ak moom kii bu moom dong bu doon moom dong sa jëkkër du génn ci kaso bi bu moom dong moom dong sa jëkkër du falu bu doon moom moom dong bu doon moom mi moom dong Tuubaa ci boppam ah carte Pastef du fi jar respecté leen suñ moromi yaay yi respecté leen suñ jabar yi respecté leen suñ yi du ngeen di falu rek tëm ne baal ma ànd ak ña Macky Sall daan àndal doomi mag yooyu amu fi yow boo fi def yëfi dof dañ la koy wax jomaay moomu ñu de booy def yëfi dof ñuy dal ci sa kaw waaw ñii fi nekkoon di tedd ak dóor waa Pastef ak damm tey ngay photo ak ñoom ak ak ak ciment la ko ree yooyu dafa war a dakk xoolal Diomaye moomu réew mi Ousmane Sonko moonu ko joxoñ ñu fal ko da ngay régler da ngay fii nga toog du foofu ñii jéggulu sax defuñu ko jéggulu sax defuñu ko jég ay gangster jéggulu defuñu ko tey ñu leen gërëm ak a tàgg ak a tàpp tàppal ak a raay mel na ñu dañuy ay doomeeram xanaa ñun bokkuñ ci réew mi xanaa ñun amuñu kàddu ci réew mi xanaa ñun soxlawuñu ay tool xanaa ñun bëgguñu suñu doom jàng xanaa ñun waruñoo faju mais xanaa ñun ay nit ah dama ne li xewoon Touba ak nam fa amee woon buñ ko nëbb nañ ko wax lépp nañ wax lépp xale xam ko bu ëllëgee dootu am ci réew mi mbir mi noonu lay demee waaye lii sëñ Bass Abdou Khadre di wax nan na kan xool ci kanam bàyyi ci ginnaaw déedéet dañuy xool ci ginnaaw ba noppi door a xool ci kanam dama ne oto oto bala nga ko départ sax da nga gis xóorute war lu ci sa ginnaaw li passé dañ koy wax ndax ci li passé li mën a sukkandiku xam fu ñu jëm sëñ ba waxoo fi dara waxoo fi lay ñaan daal mooy bu fekkee ne yor nga loo xam ne moomoo ko delloo ko te du yow dong képp koo xam ne ab Sénégalais nga yorloo moomut na nga delloo ak ku mu mën a doon ku ne na nga delloo yàlla ngi dikk te ñun ñëpp du bokk àtte te sawar lu am la sawar lu am la bàmmeel kenn du ko rëcc. bàyyi peex bàmmeel kenn ku rëcc téyel sa gémmi gu rëy gi te dem wala nga jël sa tama ji dem tëggi moo gën yuuxu yi nga dëkke te yëpp ay fen la ak jaayaate billaahi boo téewul sa gémmi gi da ko rëccu noo ngi jéggalu bu baax a baax a baax ah di ñaan jàmm jàmm dong lañ bëgg jàmm na comme li ko waxee rek jàmm dëgg da ko jiitu bu dëgg amul jàmm du mën a am bu dëgg amul jàmm du mën a am waaw ba tax na sëñ Bas teg ko ci yoon ten bokk wax deug jëf deug te lepp la yor nga ko te moomoo demal delloo ko te ko xam mu def melne yow nee ko demal delloo li nga yor parce que momoko ko te réew mi solo nako ni ziar ñepp ñëpp di ñaanal ñepp jam jam rek lañ bëgg di ñaan magal gu neex magal go xam nako borom bëggee non lañ koy doxale lépp dëppoo ak diine dëppoo ak diine te benn bakkan baña rot te ñun ñepp ñepp ñu and joxante lo xam ay julit lañ ay julit lañu wara and war bokk war a wara war def lépp affaire tarixa yi sax amul solo li am solo dëgg dëgg dëgg mooy jullit te ay jullit lañ surtout nag ànd ak suñu mbokki chrétien yi tey nga xam ne boo duggoon Touba tey lu gàtt nag dafa génne chrétien yu baree bare dañoo màggal si doon nit ñu baax ñu ànd ak ñoom boobu ba léegi amuñ benn problème chrétien yi képp na am kersa nu am ci ay jëfin ak i ak i waxin waaw te ñu rek li fi nekk nag moom laa wax waaw jomb nag réew mi moom dégg naa kenn du fi wax dëgg waaw ku wax dëgg ñu tëkkale wala ñu menacé waaye lii ma leen wax am naa yaakaar na ay fen newu ci kan boo ko jubal andi jubbanti boo ko defar xam ne noo war a defar waaw te Touba gi changé du ko di kër nga ànd ak moom du ko di nga ànd ak moom déedéet kon ni ziare ñëpp di ñaanal ñëpp. waaw di ziare ñëpp rek di ziare ñëpp yàlla ñu buur yàlla sutural te projet bi président bi teg ànd kook le gouvernement ak le peuple du Sénégal yàlla na ko pour yàlla àggale te jàmm rek am ci réew mi la xam ne général de Mourides yàlla ko fi yàlla bay suñ kanam euh, may ko fan wu gudd ba projet yi nga xam ne moom na teg teg ko ci yoonu sëñ yàlla àggale ko ci jàmm ñun ñu bokk ko jëriñoo euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des jàmm rek jàmm rek jàmm rek incha allah jàmm rek am bu soobee yàlla bu soobee yàlla jàmm rek am te jàmm dana am kan doxal dëgg kan doxal dëgg ngir jàmm sax fi daahi man daahi man jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf